Melikaan bi lu mu doon. moo jaaxal ñëpp. Melikaan bi lu mu doon. ak lu jàkkaat. ah looloo bi dox diggante Balla Gaye de ak ki nga bi ne bii nag mooy Boy Niang dafa mel nag wa dem na kañ wax ma dem dem caali. ñi ngi waaj ji sëgg kii di xamante ne mooy Balla Gaye nag dafa mel ni futteeku na eh, wane na dooleem waaye nag mi ngi yor benn perkal bu weex tàll boo xamante ne bii nag mu ngi taq lu xonq kenn xamagul nag dëgg-dëgg li si nekk nag lan la waaye ki nga xamante ne mooy Boy Niang nag na ba léegi so dara soppeeku ci li ci mënti am nag ñoom ñaar fii ak quelques minutes dinañ sëgg jàkkaarloo comme ni leen ko dige woon combat bi nekk mi ngi nekk en direct di daw eh, li ci mënti xew Boy Niang mi ngi nekk en waaye ki nga xamante ne bii mooy Balla Gaye wàññeeku benn yoon ci combat bi nga xamante ne bii moom la mujjee woon a amal euh, ci jamono ji nga xamante ne bii jàll na waaye nag moom mi ngi yor benn percal comme ni ñu leen ko waxoon mi ngi takk nag lu xonq cooy yu nag mi ngi takk ci percal bi. kenn xamagul nag li mu tàq lan la lu ci mënta xew combat bi fekki quelques minutes ñoom ñaar dinañ sëgg euh, ñu xam euh, fi dëgg gi féete ginnaaw wàccaay wu yàgg woo xamante ne bi amoon na ci seen diggante ñoom ñaar ñu ñëwee di Balla Gaye 2 ak ki nga xamante ne bi mooy Boy Niang